di rafetlu seen ànd ak première chaîne privée bu Sénégal juróom-ñaari waxtu ci ngoon jot na nes a fës ci xibaar yi bokk ci lu ñu nar a waxtaanee waa chambre administrative bu cour suprême daal di nag niinal li nga xamante ne mooy sàkkuteefu ñii di doon layal Khalifa Sall ngir nag ñu niinal décret wu njiitu réew mi nga xamante ne ko jële woon ci boppu mairie bu Ndakaaru ñu waxtaanee leneen ak lim bi nga xamante ne nag ñu ne ñooy daal di faatu rek ci wàllu jur bi lim boobee nag wàññeeku na bu baax ci at yi ñu fësal lu ni man rek di seen jano ak taskatu xibaar yi ci bés bi ñu doon màggal ñu doon li nga xamante ne mooy journée mondiale de la population programme d'appui aux initiatives de développement et de solidarité ñoom nag ñoo doon xaatim ab partenariat ak nguuru Sénégal ak ñi nga xamante ne nag ñooy agence française de développement li moo ci gënoon a fës yaatali léegi lay doon. mu ngoog dalee nag jàmm ci xibaar yi dañ ko junjee woon ca bopp ba ñi nga xamante ne nag ñooy waa chambre administrative bu cour suprême ñoo daal di niinal lii di sàkkuteefu ñii di layal Khalifa Sall ngir rek ñu daal di niinal décret bi nga xamante ne it moo ñeeloon moo doon nag moo ko jëlee woon nag ci postam boobu di mairie bu Ndakaaru ñu ñuy xamal nag laata ñuy niinal boobu lépp verdict sax am na yeneen yoo xamante ne daal di na fay jëm lu ñel mooy nga xamante ne ñii di avocat wu Khalifa yi fësaloon ko nag ngir mu jëm ci yeneen i recours ñu telu ci Kajoor Cissé ak Alpha Bathily ginnaaw ba ñu ko déjjatee ci mairie bi Khalifa Sall ak ay avocaam déposé woon nañu ab recours ngir boobu la décision ñu dal di koy annulé boobule recours cour suprême dal dina koy dàq avocat mi di ko naqarlu euh, loi yi nga xam ne moom la ñu jël pour euh, révoquer Khalifa loi yooyu c'est pour les communes code général bi nga xam ne moo concerné communes yi concerné département yi conseiller ville ah loi yi ñu jël mooy yi nga xam ne ci commune rek lay am or Khalifa n'est pas dans une commune il est dans une ville qui est une agglomération de commune avocat wu Khalifa Sall di xam ne ne justice su réew mi gaa ñoom wóolu nañ ko mais ñi nga xam ne ñoom ñoo koy doxal ñoom la ñu wóoluwul. confiance pour nous c'est dans les lois maintenant est-ce que les hommes qui les appliquent sont tous dignes de confiance eh bien nous on le vérifie par xam nga tey am na audience on nous a il affiche là où on met l'audience du 16 audience du 16 mooy yi ñu atte woon au pénal dañu koy reprendre kon mën nañu wax ne atte bi pareegul. avocat wu sali jàpp ne nag donte lajj nañu ci kanamu cour suprême waaye xeex bi daañu ko wéyal ci yeneen juridiction. bu ñu rendre décision tu n'es pas content sans faire des histoires tu peux aller de ailleurs où on va am nañu possibilité parce que fii actuellement benn chambre moo yore dossier bi moom la ñuy wax chambre administrative. am na yeneen chambre on va venir devant une instance où il y aura toutes les chambres et à l'occasion ñi àtte dossier bi tey duñ fa nekk donte sax nu procès bi di gën a dem ñi bootu ci ginnaaw xalifa Sall di wàññeeku waaye teewul tey jii xalifiste yi teewe woon nañu itam ca cour suprême di fàttali rek ne boobu boobule recours ay avocat wu Khalifa Sall ñi ngi ko déposé woon le 5 novembre ci atum 2018 Kajoor Cissé ca boobu jamono nag démb ki nga xamante ne mooy Alioune sal daanaka janoo nag ñi nga xamante ne ñooy enquêteur waa diggi nag lu ci tolloo nag fukki waxtu ba mu noppee nag ca boobu lépp ndaje ki nga xamante ne mu nekkoon ay jamono njiitu CDC moom di rafetlu bu baax taxawaay bi nga xamante ne militant yi am nañ ko ki jàppale ci bi lépp dossier ci beneen wàllu bi it muy wax la ne jamono ji nag moom soulagement rek lay yëkk ginnaaw ba mu janoo ak enquêteurs yi ñu teewlu ci Amadou Diaw ak Ablaye Ndiaye kay dëgg Aliou rek Aliou mooy mu doon xaarandi bu yàgg lool xarit àndandoo ak mbokk ñëpp ñëw fii ci division des investigations criminelles ngir jàppale Alioune Sall lu toll ci fukki waxtu maire bu Guédiawaye di janoo ak enquêteur yu brigade des affaires générales fii ci division des investigations criminelles e indi ay leeral jëm ci liñu ñu duppee scandale ay 10 milliards ginnaaw enquête bu BBC. depuis 6 heures du ñu ngi fi ñëw pour soutenir suñu maire Alioune Sall xam nañ ne rek dëgg mooy njëkk te mooy mujj te moom ku am fit la jàmbaar la gars yi xam nañ ko. ngeen di jàpp ne liñ koy tuumee defu ko. waaw yow fu koy defee loolu fu koy defee pétrole boo xam ne génnagul toq pétrole génnagul contrat yoo xam ne Ablaye jamonoy Ablaye lañ koy signé. Alioune la ñuy àndal tey ak ëllëg moom la ñuy ndax xam nañ ne waxi noonu rek la. te waxi noonu amul njariñ wax balaa nit balaa baax day dëggu ci waxam bo tey nangoo dëgg-dëgg waaye. Je suis là depuis 9 la 30 là je crois qu'il est bientôt et jeunes ces femmes et ces vieux maa ngi fii depuis 9h30 minutes te xam naa ni 20h léegi mu jot maa ngi jaajëfal góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp nag gis naa seen taxawaay si man te li ni mel doon na lu ma marqué trop doon na tamit li nga xamante ni naruma ko fàtte mukk si sama àdduna waa Géejawaay nag wane nañ ne bëgg nañ ma wóolu nañ ma ndax dañoo bàyyi mattu Sénégal digganteem ak Bénin mu doon matt bu am solo ngir ñëw ànd ak man ngir saytu si laka laa nekk maa ngi leen di wax rek maa ngi si jàmm maa ngi sant yàlla jamono ji nag dama feex trop bi ma génnee si jano bi ndax li ma jot a wax ak ñi nga ni ñoom ñoo di autorités judiciaires yi maa ngi baalu ak nag presse bi ndax scoop yi ma yoroon jox naa ko waa police. de parler aux autorités judiciaires et je suis tous les scoops que j'avais je les donnais à la police donc il n'y a plus de scoops. Alioune Sall daal génn si booru 19 h minutes fekk si buntu bi ay militants yu engagé fas yéene ànd ak moom ci xeex bi waaye li si nemmeeku rek mooy ci bile janoo ak enquêteur yu brigade des affaires générales toll na si fukki waxtu mu doon xaarandi bu yàgg li ni mel nag doon guléet ndëgëni bi enquête yi tàmbalee ba léegi. ñu koy jëjëfal am Amadou jaw ñu daal di waxtaanee leneen ñu ñuy xamal ne fii ci Sénégal nag lim bi nga xamante ne nag dañ doon faatu saa su nekk nag ci bu ñuy jur doom wala sax gune yi nga xamante ne sax dañuy faatu ci bu ñuy juddu loolee nag ñu ñu xam ne ne wàññeeku na bu baax ñu ko xam ne nag di UNFPA ci seen janook taskati xibaar yi ci jamono ji nga xamante ne dañ doon màggal journée mondiale de la population ndaje bi nag nekkoon ci teewaayu Aïssatou Diop Tall ak lay Ndiaye bi ñuy amal conférence internationale ci wàllu population ak développement mu nekk tey ñaar fukki at ak juróom boobu nag ñu ngi doom jël ci àdduna bi wërngal këpp jigéen boo jël moom li muy am ci doom mu ngi toll ci ñetti doom te mu doon ànd ak benn prévalence contraceptive bu téeméer boo jël juróom fukk yi ak juróom ñett yu toftal ci loolu sax ñi nga xamante ne ñooy décideur ngi ci la ñu waxoon ne àdduna bi bëgg nañ ko gis mu bañ a am benn violence ñu def tout tànk yu jigéen ñëpp ñu bañ teel a waaye it ñu bañ di njàmbaarloog ak li ñuy woowee mutilation génitale ci loolu sax njiit yi dañu dige woon ne dinañ def seen kéemtulaay kàttan wàllu droit des femmes ñu daal di koy respecté tey jii nag ñuy laajte fan la dige yooyu tolloo. depuis 86 ba léegi Sénégal def na ay jéego yu ama am am solo ci mbirum wérgu yaram jigéen ñi suñuy am doom ak suñu amee doom nan la ñuy toppatoo seen doom yi ba ñu mën dund. lu ëpp juróomi at te du ñu am jafe-jafe gis ngeen ci quartier yi ñuy naan ay bajenu gox gis ngeen ñuy wax programme élargi de vaccination macha allah programme yooyu yëpp tey indi na ay ay résultats yu am njëriñ. li nga xamante ne mooy taux de prévalence contraceptive fii ci Sénégal nag nekkoon na téeméer boo jël juróom-ñetti ponk yi ci atum 1986 mu ànd ak ab lim bu nga xamante ne jigéen boo jël ci li muy am ci doom mu ngi ëpp juróom-benni doom tey jii nag bu ñu sukkandikoo ci ministère bi ñu dénk wàllu koom wàllu plan ak coopération nee nañ mbir bi am na ay jéego yuñ ci def. xale yoo war nañ jàng jàng bu baax war nañ leen yar yar bu baax pour suba ñu mën a am liggéey. mun a suturlu téye seen i njaboot jàppale seen i waajur donc loolu nag ci la ñu nekk di liggéey ak programme Sénégal émergent bu nga xam ne ci benn pàcc bi mun nga xool bu baax lu ñuy wax capital humain pour xool nan lay gën a defaree wér-gu-yaram nan lay gën a defaree njàng bi nan lay gën a defaree liggéey bi pour ndaw ñu nag ñu tànn ci thème bu nga xamante ne dafay wax ci wàllu dividende démographique dafa am benn particularité ndax dañ ko booleeg ak célébration bu ñaar fukki at ak juróom bu conférence internationale ci wàllu population ak développement ak juróom fukkeelu atu création Fonds des Nations Unies pour la population ñu gën ko xamee UNFPA ci loolu sax gato bi moom daggoon nañ ko ci kanamu askan bi fa teewoon. mu ngoog di ko jaajëfal moom Aïssatou Diop Tall ñu waxtaanee wàllu mbay mi ak jëwriñ bi ñuy dénk wàllu secteur boobee moom nag moo adduwaat ci lépp li nga xamante ne moo ñeel subvention wala jàppale bi nga xamante ne dañ koy jàppale baykat yi Moussa Baldé naan dañoo fas yéene nag yokk bi nga xamante ne dañuy jot ci boobu lépp subvention looloo waral nag coolu li yëpp bëri ci wàllu koppar gi ñuy séddale it muy xam ne ne ala fokk rek ñu daal di gën a ñoŋal système bi ñu teewlu ci Babacar Tambidou ci ay leeral. ñu nekk ci wàccaay nawet mu nekk période bi nga xam ne jëwriñ gi ñu denk wàllum mbay ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax lu ñeel wàllum subvention nag daal wàññeeku jóge ci 55 pour cent daal di ñëw ci 48 pour cent Moussa Baldé nga xam ne moom la ñu dénk wàllu di ñëw ci li waral li nu mel. c'est ce qui m'a permis de distribuer un volume aussi important. wàññeeku bi nag tax na ba ma gën a distribuer mbir mi ci nombre bu bëree bëri euh, te loolu yaakaar naa mooy mbëbët bi maanaam ba producteurs yu bëri mën a jot ci lu nu mel loolu mooy logique bi am na aussi li nga xam ne mooy subvention lu ñeel wàllum engrais waaye itam lu ñeel wàllum céréales. <laughs> il y a aussi la lu ñeel wàllum polémique bi ñu nemmeeku ci subvention yi lé jëw dañ gi ñu dénk wàllu mbay bi nag di xam le ni dina ci andi ay coppite par exemple pour un ménage X le nombre de personnes loolu nag dafa am ay ay damay joxe exemple rek bu fekkee ni dañoo wax par exemple benn producteur x est que moom mu ngi fay lu jëm ci wàllum impôt est-ce que moom euh, ci année bu mujj bi lu mu jotandi ci wàllum arachide état bi la ko jaay mu nekk ay critères yeneen yu nga xam ne ci moom la ñuy sukkandiku ngir lu ni mel ñu mën ko def ndax système bi nag baax na à cent pour cent ah, loolu nekk na lu nga xam ne mën nañ ci waxtaan waaye terewul man maa ngi koy soulever bu baax a baax dinaa ci teg ay ko suxali. probablement je pourrais faire des propositions pour l'améliorer. ci biir émission par conviction bi ñu doon defandi nag ki nga xamante ne ni moom la ñu dénk wàllum mbay daal dina ñëwaat ci anam bi nga xamante ni moom la yore bi le secteur lu ñeel wàllum coowal pétrole itam daal dina ci àddu naka noonu élection locale yi nga xam ni moom la ñuy Babacar Tambédou dañuy ànd ak waa programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement ñoom nag ñoo xaatim ak diggante nguuru Sénégal ak ñi nga xamante ñooy agence française de développement loolee nag amoon ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre atub 2017 boobu lépp programme sax daanaka dañ ko xayma woon wala sax ñu tàllaloon ko ci ñeenti at mu nar a ñeex jeex nag ci atub 2021 mu undu nag lépp loo xamante ne moo ñel ci wàllub nekk ni ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi nekk ca bitim réew dañ ciy teewlu nag ki fa teewaloon gouvernement bi ci teewaayu Kumba Gise ak kii di Mohamed Ba. mu bañ a yem léegi rek ci France mais ñu dem jël ñi nga xam ne dañu nekk Espagne nekk Italie nekk également Belgique Union européenne ñoo jàppale ñu si. parce que dafay yokk doole li nga xam ne mooy projet bi dootul nekk France rek mais dafay nekk Union européenne si cadre li fond bi ñu wax le fonds fiduciaire ñu mën a dimbali suñu mbokk yooyu képp koo ci xam ne da nga am association nekk foofu bëgg dimbali sa dëkk. nga mën a jël xaalis alal boobu soo ko indee nga dajale ko état du Sénégal am lu mu dugal union européenne am lu mu dugal soo bëggee def poste de santé boo bëggee defaraat sa école dëkk soo bëggee defaraat beneen jumtuwaay boo xam ne say mbokk dañ koy soxla nga mën a am alal bu takk boo xam ne da nga ko mën a defar parce que xam nga ne kii dem tukki moom rek mënul dajale xaalis ñëw defar ko te bu koy defar aussi dafa war a méngoo ak bëgg-bëgg yi bopp dëkk bi am mais dafa war méngoo également politique bi nga xam ne moom la Sénégal di dawal parce que poste de santé école de santé boo ko de euh, école également soo ko defaree dafay laaj mu am yeneen i nit ñoo xam ne ñoo fay nem pour mën ko jëriñoo donc état du Sénégal li muy def mooy boo defee poste de santé lafa nekk personnel mën la ko indil indil la garab yi mën na ci dimbali donc liggéey boobu nag moom la ñu ñëw tey pour lancer ko. mu ngoo ku ñu wutali ndar géej foofee nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu tourisme ak lii di transport aérien moo fa amaloon nag ak waxtaan bu yaatu jagleel ko nag lépp loo xamante ne day ñeel sukkali boobu lépp secteur ba mu ca nag moom Alioune Sall dem na nag amal ab doxu nemmeeku fi nga xamante ne nag mooy liggéeyu travaux yi ñeel li nga xamante ne mooy aéroport bu ndar laata muy dem ca parc bu Djoudj ñu teewlu ci Moussa Diagne du Boye ci wàllu xel ak xalaat naka la ñuy def ba mën a relancer li nga xamee ni moom moo di tourisme bi fii ci Sénégal tax na nag jëwriñ gi yore lépp lu jëm ci wàllu tourisme ak transport aérien ñëwoon nag fi nga xamee ni moo di ci ndar ngir nag sottante xalaat ak waxtaan ñi nga xamee ni ñoo yëngu ci wàllu woowu ci noonu nag ñu gis ni kii di ministre bi moom indaale na woon sax pexe yu bëri yi nga xamee ni moom la ministère am war a doxal ngir nag mën a soqali bu baax lu jëm ci wàllu tourisme bi tax na nag moom ci boppam mu sax aéroport international bu Saint-Louis bi nga xamee ni kii di njiitu réew mi ubbi na ko li nga xamee ni moo jëmoon ci wàllu liggéeyam. mooy xamal waa Ndar ni aéroport bi nga xam ne président Macky Sall lancé woon na ko liggéey bi incha allah dinañ ko mottali ci fii ak mois d'août ndax li ñu waroon lijjanti ci kayit yëpp pare na te incha allah bu tàmbalee euh, fukki weer ak benn euh, bu ko yàlla dogalee jàmm ci lañ koy livré kon nekkoon loo xam ne baaxoon nañu wax ko. Euh, te ngeen xam ne lu ëpp ñaar fukki milliards ak ñett dinañ ko ci dugal muy luy indi koom-koom ci ndar muy indi également activité bu baax a baax ci ndar loolu lu am importance la waaye aussi ci wàllu tourisme dafay indi bunt bu mag a mag pour Saint-Louis ndax ki nekk fii Ndar am fi hôtel mbaa am fi agence de voyage mën na lëkkale ak tour opérateur bu nekk France mbaa bu nekk Amérique mbaa bu nekk Londres pour que abion yi indi touristes yi au ñu jaay Dakar ñëw fii directement fii ci Saint-Louis kon loolu dafa nekk lu am. kii di jëwriñ gi nga xamee ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu tourisme wax nag ni kii di njiitu réew mi sax am na benn fond boo xam ni indi na ko tegal ko ñi nga xamee ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu tourisme bi mu di naka la ñuy fexe ba gën a moderniser li nga xamee ni rek moom moo di seen wàllu hôtel la loolu nag mu tollu ci juróom benn milliard. jumtukaay la pour jàppale également ñi am hôtel yi ndax bu ñu ko defee ba pare bu ñu xoolee gis ne am na ay euh, écart maanaam fu mu egg egguñu fa. lii di crédit hôtelier te nga xam ne ci suñu ministère bi la la nekk te président Macky Sall dugal ci juróom benn milliard dañ koy jël jagleel ko ñooñu nga xam ne ñoo soxla ñu yégal leen pour que ñu yokk seen investissement kon moo wax ni lu am importance la baaxoon na aussi ñu fësal ko. ci noonu sax ki nga xamee ni moom moo di Alioune Sarr demoon na fi nga xamee ni moom moo di parc bu gëmbal ak bu juuj ngir nag mën a fexe ba waxtaan ak ñi nga xamee ñoo di conservateur yooyu ci liggéey bi nga xamee ni moom la ñuy doxal naka la ñuy fexe ba nga xamee ni daan leen mën a dolli ba ñu mën a doxal mission boobu. Moussa Ndiaye ca euh, bool boobee sax la ñuy desandi dem utali nag diwaanu Fouta ànd ak askan wa ca Kaskas ñoom nag ñoo daal di dajaloo nag ngir xamal ne maire bi ne ànd nañ ci projet boobee nag lii di taxawal ab marché hebdomadaire ca Medina Njaaj be dañ ciy teelu rek kii di euh, Aminata ci micro Cheikh Oumar Diong suñu teewaan bi lu ko waral mooy mooy programme luuma bi loolu moo tax suñu teewaay tey te suñu teewaay tey bii moom jàmm rek la ñu wax waxuñu histoire waxuñu xuloo waxuñu xeex waxuñu xiiroo waxuñu ŋaayoo ñun suñu bëgg-bëgg rek la ñu wax ñun luuma lañu wax luuma la ñu wax tey luuma la ñu wax suba luuma la ñu wax gannaaw suba parce que ci zone enclavement la ñu nekkoon ñu ngi sant nguur bi nag defar nañu yoon bu baax boo xam ne tey enclavement jeex na suñu waxee développement fii lay commencé sax si si dëkk bi boo amee glace di nga jaay boo amee ndox di nga jaay boo amee mango di nga jaay boo amee ataay lépp loo xam ne yaa ngi ci yëngu di nga ko jaay boo buggee def restaurant nga dundal sa njaboot di nga ko am loolu moo tax nag gis nga mbooloo bu nekk fii yëpp dëkk bi yëpp ànd nañ ci marché hebdomadaire bi ñëpp ñoo ci ànd boo gisee nit ñi nee nañu fii ñoo ko moom wante pas ñëpp ñoo déggoo ñoo def assemblée générale mag góor xale jigéen ñoo def assemblée générale ci dëkk bi ñu ne bu dee dëkk bi soxla na suuf yow moomatoo suuf bi loolu moo tax nag suñu teewaay ñu wax loolu population bi ñu wax loolu Sénégal ak ginnaaw réew bi yëpp ñu xam ni lii kas-kas ñoo ko toog ñoo ko déggandoo ñoo ko jàppandoo jàmm rek la ñu wax. jàmm jàmm jàmm la ñu xuloowuñu xeexuñu xuloowuñu parce que lu mu moom intérêt la intérêt diwaan bi yëpp boo gisee femmes yi dañuy jóge fii dem ba ba ba Medina dem ba Galoya dem ba dem ba Dodel ah kuñ suñu amee fii ci suñu dëkk coono wàcc na loolu moo tax ñun ñi ñëpp ànd nañ ci ci marché hebdomadaire bi ñëpp ànd nañ ci luumu bi population de Kaskas ñëpp ñoo ci ànd ñëpp ñoo ci jàpp. bu ngoog mu nekkoon nag Aminata Diallo doon àddu nag ci micro Cheikh Oumar Diong dañuy waxtaanee aada ak cosaan ànd ak artiste bii di Idrissa Diop moom nag mooy xam le ni dafa fas yéene féete rek li nga xamante ne mooy ñaaf ki at yi nga xamante ne def na ko ci carrière yo musique am muy xam leen sax fan yi sax nar na amal ab concert fi nga xamante ne mooy ca musée civilisation noire ndax dafa bëgg nag gën a partager expérience am ak génération yi di ñëw ra ci dolli nag muy xam le ne wàllu mbëggeel nag dina ci am ab pàcc bu yaatu yaatu looloo waral sax temam bi mu daal di koy tuddee couple mythique xaajata ñoo si lañ ci teewlu ak Alpha Bathily juróom fukki at di wër àdduna ak gàngunaayu musique am artiste bi nga xam ne moom mooy boole jazz rock funk blues ak ay rythme afro-cubain mooy dellusiwaat ci jaar-jaaram bi nga xam ne mi ngi ko tàmbali ci bu mu amee fukki at ak juróom benn bi da nga war a xam ta propre histoire ak ñi la koy raconté nan lañ la koy raconté donc ñoom dama leen daan topp lu bëree bari bari bari des fois ab Ablaye Nar Samb ak euh, Mbodj Ndiaye Samb yàlla na leen yàlla xare àjjana des fois dañ ma daan xool ne mi yow géwél nga wala lan nga mais pourquoi nga ñuy topp nii tout le temps. tolloo ci juróom fukki at nag kii di Idrissa Diop daal na si jot a dajeek ay artistes yu bëri lu ñu mel tax ñu xam ko fii ci biir réew mi waa itam ci bi réew. donc ñooñu bu ma dajeek ñoom li nga xam ni Sénégal moom la ma jox comme bagage moom la ma jox comme culture loolu la doon transporter foofu di ko yóbbu ak ñooñu di partager ak ñooñu donc ñi ma partager dañ may xool rek. comme un musicien qui parle lu même langage qu'eux. tey artiste bi di waajal feetu juróom fukki atam ba tax na li mu bëgg moom mooy xam-xam bi mu am ci wàllu caada ak musique mu daal di koy tàggat ndaw ñi. affaire bi gën a important mooy euh, ñooñu boo dajeek ñoom dafa am lu la sa culture di jox c'est-à-dire il faut nga am ay bagages yoo xam ni dina la mën a permettre. nga wax ak ñoom musicalement mooy li may wax rek Sénégal yi yëpp ci musique ak musiciens yëpp ne leen bu leen toog rek jàpp seen culture rek bañ ko partager parce que boo ko partagé wul doo mën a bokk ak euh, musique ñu bari ba tey ci boobu lépp wàll artiste bi di Idrissa Diop daal dinay fas yéene màggal li nga xam ne moom mooy mëggeel ba waral thème bi mu choisir mooy couple mythique ci noonu mi ngi jox rendez ay fanam samedi bii ca musée des civilisations noires ngir amal fa ab concert bu mucc ayub mu ngoog élément boobee nag mooy ndarkepp xibaar yi jaa ngeen jëf ci teewlu bi li moo fi ruse woon ci xibaar xanaa rek di leen ñaanal fanaanu jàmm rek sàkk ci yéen